salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet SSP TV dal leen ak jàmm ci xibaar di wax ñu ngi ñaan képp koo xam ni gën nga ci page bi rek ñu ngi leen ñaan nga abonné bés bés ko la notification dina la may bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko rek di nga bokk ñu koy njëkk a jot li nga xamante ni moo gën a fës ci xibaar yi bokk na ci ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko ginnaaw biñ ko génnee ci list de parrainage bi ñi nga xamante ni ñooy avocat président Ousmane Sonko yi gannaaw ba ci la ñu del def benn recours boo xam ne ñu dugal ko ci nga xamante ni mooy Cour suprême gannaaw ba nag ñi nga xamante ni ñooy waa Cour suprême ñu mujjee annulé li nga xamante ni mooy recours boobu ñu ne ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko du mën a bokk ci liste parrainage bi ci noonu la dugalaate ba beneen recours boo xam ne ñu ngi ko dugal ki nga xamante fi nga xamante ni mooy tribunal bu Ziguinchor mu mel ni niki suba ci alxames bi la ñuy xaar lépp loo xam ne war na fa rusee cour bi nga xamante ne ñi nga xamante ni ñooy avocat Ousmane Sonko yi daal nañ ko def mu mel ni ki nga xamante ni mooy maître Clédor daal di yëkkatu ay kàddu mu daal wax ni ñi nga xamante ni ñooy juges yi war nañu bàyyi xel ñi nga xamante ni ñooy population Sénégal yi ba bépp décision boo xam ne jël nañ ko rek ñu bàyyi ci xel ñu bañ a def loo xam ni lu leen neex lay doon ba xañ ñi nga xamante ni ñooy population Sénégal yi seen bëgg-bëgg bi mu mel ni niki suba ci alxames yi lañuy xaar bépp décision bi nga xamante ni daal dina wàcc ci tribunal bi